جل أدما تسيجو كون لي بريزون دو في تبح جمعة جي تي نديغال سوني بروم لا تبارك وتعالى تي ليغي لا بوكو ليغي جام يالا لا تبحنا في جمعة جي امنا في تامت فني فاج كايب غير غير موي ييب اوبتار ريجيونال جوغي فوفو تامت بون مارساسو comme téemante wax na ko am na ku mu ko tuddal sax monsieur euh, balaa mu Moussa Daffé kon mu monsieur le gouverneur nga yokk rek soxla nga yokkaat nga yokk rek xewal moom du dee nga yokk rek ñaan ñaanal yëpp yow la ñu yàlla jox yow la ñu am te ñu ngi la ñaan yàlla ñu may la gudd fan ak wér ak yokkute